internet yu Tactic SN ñu ngi leen di jaajëfal di leen nuyu euh, tey nag gis ngeen ñu ngi fii ci rond point marché Sandaga euh, ñu ngi fi woon ñëw fii pour taataan ay kàddu euh, par rapport ak ak nouvelle année bi nga xam ne moom la ñuy waajal di ko dëgmal ñu ngi woon fi nag poser ay questions di recueillir ay impressions par rapport ak commerçants yi nga xam ne ñoom ñoo fi nekk. Euh, jël leen xool su ñu nekk xool su ñuy yëngu euh, lépp rek nga ngi euh, jébbal leen ko yéen ñi nga xam ne yéen yéen suñu internaute ñu ngi waat toujours fii si euh, marché Sandaga ñu fii si benn shop euh, sëñ bi euh, maa ngi lay nuyu. waaye sant bu baax la bi naka la. Cheikh Mbacke Gaye. Cheikh yow yàgg nga fi li ngay def nii. waaw yàgg na yaa ngi ci mbirum jaay ak jënd yére. waaw jaay yére xam période bi ñu nekk nii di décembre bi ndax kii ñu ngi dox marchandise mi ngi dox ko mu doon doxee avant. waaw marché bi moom waxtu yàlla su ma waxee dëgg yàlla tax moom décembre bi moom par rapport ak décembre yële passé ci ginnaaw quoi parce que yële moom décembre yi yële passé ci ginnaaw ay deux mille euh, deux mille douze deux mille douze ay deux mille quatorze xaw na tane mais moment bi ñu wax ne décembre moom waxagul waxagul li mu joxeegul neexagul daal pour le moment parce que décembre da doon fekk say bagage nga jaay vingt quatre décembre da nga daa manqué ay am problème robe mois bi daanaka ay boo xool ay xale yu ndaw rek daanaka léegi ñoo commencé ci mag yi daanaka buñ ñëwee seen doom la ñuy jël affaire yooyu quoi deux cent mille moom bu fekkee dëgg nga bëgg a dégg moom des na quoi joxe joxeegul quoi joxeegul situation dëkk bi la quoi dëkk tamit da ciy joué en même temps ak yeneen dañuy am yeneen yu gën a priorité te dañuy concentré wu loolu problème bi quoi ñu ngi ci euh, fin d' année bi di waajal 2019 euh, ban message ngay activé ñu ngay jox ah, ah. ñun ñaan yàlla du ko fekkee at yu du ko te at yu bëree bëri rek moom wax dëgg yàlla moom ñu sant yàlla bu baax daal xam nga nit moom amul lu may moom sant da ngay def bu doxee bu doxee moom da ngay sant rek xañ na lii ñëw dina dina dina changé quoi mooy dàq. waaw waaw ah, ah, élection yi moom. ñu ñaan yàlla dugg ci bisimilah rahmaani rahim ñu ci alhamdulilah ñu xam ne moom joŋante la rek que le maire gagne ñu def ko ci ànd ak dëkk ak tey rek parce que xam ne lu ne jaar na fi élection bu ne jaar na fi dañ ko nañ def lépp ci jàmm ak salaam rek parce que dëkk moom jàmm lañ soxla fi ñu toll moom. parce que muñ la boole ñàkk faay ba pare di di indi ay tool moom wax dëgg yàlla mu soxla wuñ ko daal. <laughs> ñëwaat fii ci euh, beneen place euh, di gën a soxla bu baax boo xam ne jàmbaar na moom tamit ñu ngi yëngatu ci wàllu tatouage soxna si maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay soxna si. tur bi naka la. Tata Colette Jackie. Tata Colette Jackie na euh, ñu ngi la doon dalal si suñu émission bi nga xam ne moom la ñu tourné tey jii doon la laaj naka la liggéey bi doxee fii ci wàllu tatouage bi. ah liggéey bi métti na méttiwul. waaw mais ñu ngi si góorgóorlu bu baax a baax. ñu ngi si góorgóorlu bu baax a baax. ñu ngi sant yàlla daal. fin d'année bi ñu nekk muy mois de décembre xam ne ñun ñooy ñëw di def ñaa ngi ñëw bu baax xam nga xale jigéen moom dañu bëgg defaru lépp li wàllu moom lu ciy dem ba jeex ñoo ngi ñëw macha allah. ñoo ngi ñëw rek. <laughs> xam nga jigéen moom yombut. mais tuuti rek. ndax ci. noonu nag yàggu ma ci noonu dañ maa formé sax nag day waaw. ay 6 mois 1 an daal maximum 1 an lay yem en même temps ñu defal ay business jaay lay dàll ay lentilles greffage lépp daal lépp luy yëngatu ci afro jigéen rek ñun ci ñun waaw. ba maa ngi sant yàlla bu baax nag maa ngi sant yàlla bu baax te moom lay neewoon te gis sa bopp rek génn ci mais ñu ngi sant yàlla bu baax moom alhamdulilah. ñu ngi si fin d' année bi aujourd'hui euh, bientôt en mhm. lan mooy message bi ngay attirer à la population particulièrement à la jeunesse sénégalaise. yokk góorgóorlu rek yokk góorgóorlu ñi si amul liggéey wuti liggéey ndax nit da war am métier nit danga war am métier xale yi góorgóorlu bu baax jàppale seen parents yi loolu rek laay am lu leen tant que ñu moytu rek moytu daal baax na daal ñaan fagaru baax na sax moom si naan ñu koy wax noonu moytu daal affaire tamit ñu teg si yoon rek ndax Sénégal mu ñu ko bokk. salaamaaleykum sëñ bi maa ngi lay nuyu. waaleykum salaam maa ngi lay fay. tur bi naka la. Madické Mbaye. Madické Mbaye euh, papa ngi lay laaj ndax yow li ngay liggéey nii yàgg nga ci def. non place bi yàgguñu fi nag. yàgg yàgg nga def commerce. waaw ah, daanaka def commerce nag. Euh, naka nga gisee euh, jënd ak jaay beeg surtout période bi nga xam ne moom lañ nekk muy période décembre fin d'année bi ndax mi ngi jaar wala. waaw jënd ak jaay bi moom ci période bi moom wax dëgg yàlla ni mu daan deme demewul noonu daana gën a xumb daana gën am njarte daal. pour yow lan moo ah, xaalis nit ñi moom bëgg nañu hmm? loolu moom xëy na mbir yàlla la waaye daal ni daan demee demeetul noonu activité yi. ba doon sax liggéey mooy mooy jaay moom boo koy def bu doxul rek tolof tolof commencé na ndax dangay fay place dangay fay transport di xëy war di joxe dépense ak yeneen activité ele doo xale yi hmm? ak maladie yooyu yëpp hmm? yooyu yëpp daf cee daf cee bokk. bu doxul day metti papa mhm. laaj euh, euh, message bi. may lancé moom mooy ñu ñaan yàlla at mi ñuy dugg ñu dugg ci ak jàmm ak salaam yàlla defal ñu ci ak daal defal ñu ci xéewal ba nit ñu bëgg a dundee ñu dunda noonu waaw daal laa ci. ko citoyen waaw maanaam population bi ñoo war a conscient rek li seen warugar ñu def ko sans mu am violence kenn ku ci nekk la nga bëgg yaa ko xam la nga décidé yaa ko xam ak ka nga décidé ka nga àndal mën nga ko ànd ak moom ci jàmm ak salaam te yàqu-yàqu du am gaañu gaañu du am ñi nga xam ne tamit ñooy. ñoo ñi nga xam ne ñooy leader yi tamit ñoom it nañ bëgg jàmm maanaam nañu fexe ba violation bu mu am ñoom it lépp ci ñoom la war a commencé ndax nit ñi bundee sonn ngir ñoom ñoom it dañoo war a bëgg jàmm ñi nga xam ne ñoo ne seen ginnaaw ñu am jàmm loolu daal laa ci am mooy wax ci ci côté boobu. baax a baax lan ngay wax internet yi euh, seetaan euh, Tabtire Sene waaw li ma leen di wax maanaam ah, yàlla na nga yàlla defal jàmm ñëpp rek hmm? defal ñu ah, jàmm ah, hmm? ñu dund ci jàmm rek hmm? jërë ngeen jëf na yéen it li ngeen def ba rafet na trop ndax génn di di laaj nit ñi seen xalaat seen tolluwaay waaye yooyu moom lu rafet la ndax xëy na loolu ñuy jiite réew mi war nañu war nañu war nañ leen jàppale yéen ngir ñoom ñu mën a xam lu ñu war a def ak population bi ah waaw ñu leen def moom lu rafet la lu am importance la nag ci nit ñi.